Safietou sa Safietou ñu bàyyi la ak sa invité Fama Ibrahima Cissé. jërëjëf euh, Fatou Diouf Faye alors euh, comme ni nga ko waxee woon euh, sànq rek kii di Fama Ibrahima Cissé moom lañ fiy dalal di waxtaanee nag lépp loo xamante ne jëm na ci prélèvement bancaire yoo xamante ne prélèvement sans préavis des institutions financières yoo xamante ne nag dañ koy def te yoo xamante ne duñ ci waxtaanee ak ñi nga xamante ne ñoo di client yi wala niñ ko mën a tuddee ñi nga xamante xamante ne ñoo am compte si yenn si euh, ay euh, banque loole nag lañu ñu nar waxtaanee waaye euh, balaa ñu dugg si loolu est mën nga ñu ñëwal si li nga xamante ne nag moo waraloon seen doxub ñaxtu bi foofee sa BHS Banque de l'Habitat du Sénégal. effectivement xam nga Sénégal dafa am quelque chose comme 33 banques. Mm-hmm. te banque boo fay nekk dafa am ñaari compte yoo xam ne mën nga ko fa am muy compte courant. ak compte d'épargne compte courant ci ngay def prêt ci lañ lay virer sa salaire ci ngay def yenn opération yi compte d'épargne foofu ngay denc sa xaalis compte courant bi nag mooy compte boo xam ne mën nañ ci dagg ay frais comme ay agio et cetera foofu lañ koy dagg mais bee kenn du ci dagg dara au contraire mieux dañ koy rémunérer daanaka dañ koy fay parce que da nga fay denc sa xaalis banque bi di ko lebal sàmba ak ma demba di ci am ay intérêt yoo xam ne banque centrale dafa ne bu ko jotee ne la ci compal 3,5 pour cent jox la ko donc en 2004 dañoo généraliser li ñuy wax bancarisation en outrance c'est-à-dire que Sénégal dafa ne bépp payoor képp kuy liggéey kat payoor bu tollee ci 100 000 francs dañ ko war a yóbbu banque impérativement boo ko deful dangay ngay tomber sous le coup de la loi bu mu amee nag mu nekk marché bu mag boo xam ne dañ ko jox des étrangers en réalité parce que Sénégal ay banques étrangères ñoo fi nekk daanaka ñu jox leen ko weer bu nekk ñu ñëpp ñu cotiser muy muy personne physique ay ni ñii 7000 ñu tuddee ko agio entreprise yi ay 50 000 200 000 ñu tuddee ko agio weer bu nekk ñu jox ko banque yi ne leen yéen moom te amul benn logique financière ci boobu reposé wu ay frais de gestion de compte lañ ko tuddee ñoom benn banque bu ñuy neex BHS mu xëy daggat ñépp la nuit du 28 ci guddi si ay 2 heures du matin mu envoyé ñëpp ay SMS boo xam ne da leen a dagg tibb seen xaalis ñii 700 ñii 10 000 ñii 15 000 ba plus de 100 000 francs. fan la ko teg. tegu ko ci benn logique financière. parce que nit ñi ñu ngi fay agio normal parce que ñoom seen agio dafa dañ ko tuddee pack benn package la boo xam ne agio yi fa lañ ko dajale muy 4999 boo xam ne képp kuy client banque. BHS dañ la koy dagg mais comment se fait que ñu xëy benn jour benn weer dagg nii nit ñi ay 15000 ay 20000 ay mille ay 100000 francs bu mu amee automatiquement ñun dañoo réagir parce que nous défendons les usagers de banque dañoo réagir ne leen da ngeen dem réclamer xaalis boobu ñoom ñu wooñu buñ ñu wooyee on a discuté au téléphone ñu ne leen il faut que ngeen justifier ces prélèvements là ni nga ko jéem a justifier c'est des agios ñu ne leen agio yi nañ koy dagg 4999 pourquoi d'autres frais mënuñu ko justifier mais ce qui est grave mooy compte d'épargne bi nga xam ne kenn waru cee dagg agio dañ ko war a rémunérer foofu sax dañ faa dagg agio ñenn ñi donc mënuñu ko woon justifier ñu ne leen nag bu leen ko justifier wul les usagers nous allons leur euh, leur demander d'assiéger la banque et de réclamer leur dû boobu nag ñu am benn peur bu leen jàpp ba jour boobu ñëpp di fay ñoom fay ñu le vendredi ñëpp banque yëpp fay nañu salaire yeeg yooyu mais ñoom ñemewuñu woon fay vendredi parce que xam nañ ni population bi mer na parce que père de famille boo ko daggee cent mille wala nga dagg ko vingt cinq mille wala nga dagg ko dix mille francs day am lu muy def ci gafagaam te bàyyiwuñu kenn mm-hmm. képp ku fa ab compte tagg dañ la mm-hmm. ñu bañ a fay journée boobu ne dañoo am panne technique boo xam ne voilà mënuñu fay le vendredi ñu bàyyi ba le samedi nga xam ne weekend la ñu door a fay moo tax nag ñun le lendemain ñu nekk euh, usagers yi dem leen dee BHS le la le le lundi ngeen réclamer seen i xaalis ca lañ demee mais boobu fekk na comme ñoom xam nga sàcc rek bu sàccee sa xaalis ba pare day bëgg couverture comme elles sont hyper protégées mhm. ñu wut dispositif policier bu bu bu bu dayoo ay camion policier ñëw gaare fa du ñu xaar ñun bu ñu ñëwee nag Mm-hmm. ci gàpp bi dugguñu sax si biir. Mm-hmm. commencé sensibiliser population ne leen nag il faut faire la réclamation. Mm-hmm. fa la ñu fekk euh, assemble euh, attroupement bi ñu taxañ ñu jàpp ñu jaay ñu doole. yóbbu ñu police entendre ñu. bu ñu xamee ni ñu euh, ñoo nekk ci dëgg. à 14 heures ñu libéré ñu. pour dire. que régulateur. mooy banque centrale ak état du Sénégal. dañoo war a jël seen responsabilité par rapport ak banques yi parce que nous sommes dans un contexte de baisse. des prix mënuñu boutiquier bi ñu ne ko wàññil fukki dërëm jaaykatu mburu bi ñu ne ko wàññil euh, juróom dërëm ba pare banques yi kenn ñemewu leen wax wàññi leen parce que en réalité ñoom ñooy jaay service services financiers payor liggéeykat jàmbaar boo gis xaalisam ca banque lay jaar soit daf fay jaar pour mu fayeeku wala dafay jaar boo xam ne da koy denc. kon Famara li nga bëgg a wax foofu mooy euh, bu fekkee ne dañu ne euh, boutique bi na wàññi euh, diw ak diw ak diw nañ wàññi banque yi tamit dañoo war a wàññi. absolument mhm. parce que la ngay fay boo xoolee ci ay agios ay frais. Mhm. ay les services financiers transfert d'argent et cetera. Mhm. mais boo ko calculer par mois. mais c'est une somme énorme ñooñu non seulement kenn ñemewu leen wax wàññil. mais pire ñu yokk seeni service di dagg nit ñi ay vingt cinq mille di créer ay agios yu bees yoo xam dañuy lay dagg ay vingt cinq mille ay ay cinquante mille ay cent mille. mais sans explication. dëkk bi. dafa am ñu ñu yab am ñu ñu yabul. de très longtemps depuis très longtemps nag. gis nga jaaykatu buru bi lañ yab ak boutiquier bi ak néew doole yi nga xam ne dañuy góorgóorlu. di jéem am dara lu ñu yóbbu seen kër pour dund. mais les dinosaures financiers. les délinquants financiers. les bandits les vampires. ñooñu kenn yabu leen ci dëkk bi ils sont hyper protégés de fort longtemps muy banques yi parce que ñoom ñooy jaay les services financiers te gi xam képp kuy kuy ku nekk Sénégal xam nga ni services financiers yi poids bu mu am ci sa gafaga mais dafa énorme mais Famara euh, seen association bi kañ la juddu. association bi mu ngi judd en 2009. en 2009 foofu laa doon bëgg a ñëw depuis 2009 ba léegi yéen ngi xeex lu nu mel mais ba léegi amagoo leen si ndam. waaw à qui imputer la responsabilité. waaw au Sénégalais parce que un combat citoyen les combats citoyens ne mobilisent pas au Sénégal. politique folklore religion ñett yooyu la. boo wootee meeting bu fees dell boo wootee combat bu fees dell folklore mooy combat yi. ak politique ak religion màggal gàmmu et cetera mu fees dell yooyu mooy mobiliser mais les combats citoyens kaay la xeex pour suñu àq ak suñu yëlleef. te ñoo ko bokk moom te ñoo ko mhm. te chaque jour nga dund ko. Mhm. parce que ku xëy banque dana lekk ci yow. Mhm. mais combat yu war ku xëy émetteur de monnaie électronique yi danañ lekk ci yow. ku xëy assurance bu dee am nga oto wala yooyu dana lekk ci yow. par conséquent combat yooyu da mobiliser en réalité. maintenant niveau d' instruction. niveau euh, mentalité sénégalais la peut-être que dañoo xamagul genre combat yooyu moo tax peut-être euh, voilà. wala est-ce du seen xeex bi tamit moo amul niveau parce que am na ñu bëri ñoo xamante ne sumboon nañ fi xeex te terewul tamit gagné nañ ko euh, te peut-être est-ce que tamit nekkul ne BHS kese da ngeen ko singali am na yeneen banque yoo xamante ne tamit qui font pire. oui effectivement parce que BHS dañ ko yónni gis nga prélèvement yi mu def nii dañ ko yónni. maanaam. daanaka bu jàllee ci BHS day jàll ci banque yëpp réalité. parce que banque yi tam duñ toog di xool elles sont en concurrence 33 lañ BHS moo mar moo njëkk a teg le pas créer agio bu bees di ko dakk dagg usager yi mais bu jàllee mais yeneen banques yi pourquoi pas parce que ñoom ñëpp xaalis la wut ah xaalis la wut ci usager yi te duñ ko mën a amee dañ ko am ñun ñu ne leen mën ngeen wut xaalis su ñun parce que ay entreprise ngeen mhm. mais taux d'intérêt bi imagine boo jëlee 10 millions fay millions pour le crédit immobilier boo jëlee 10 millions 21 millions ngay fay boo jëlee 15 millions ay 33 millions ngay fay c'est énorme pour un travailleur koo xam ne mës na laa 10 yow nga dagg ko intérêt ay 10 millions xam nga BHS mënoon na def acte boobu ñu joxe consigne ne leen génn leen ci banque bi mais malheureusement kenn mënul génn ci banque bi xam nga dañ fa jël ay prêt immobilier jël fa ay prêt à la consommation yooyu noonu mënoo génn comme pendant 15 ans mën na ko teg mën na la teg lu la lu ko neex. doo mën a génn. te boo bëggee génn ñu ne la attestation d' engagement. Mhm. attestation de non engagement. Mhm. attestation d' engagement di jar ay 87000. Mhm. attestation de non engagement di jar ay 87000 lan mooy attestation d' engagement mooy këyit bi wane. Ah, ah, ah, attestation de non engagement mooy këyit bi wane ameloo ma dara. boutiquier bi nga dem fa am fa bon. fay ko lépp ba mu jeex nga ne ko damay dem mu ne la non dama lay jox reçu reçu boobu mooy banque bi wala lu wax attestation de non engagement. 87 ko jaayee. nga jël ne boutiquier bi ñaata laa la amel ci xaalis mu ne la non man du la ko wax dama la koy bindal. muy attestation d' message yi ngeen di jot.

parce que da nga bëgg information. mais Sénégal fu ñu jëm. ci condition yi mm-hmm. pourquoi banque yi di gruger. mais est ce que xeex bi dina dina suffire rek pour yéen kese Famara est ce que amul ñeneen ñoo xamante ne war nañ leen appuyer. effectivement yeneen branche yoo xamante ne ci Sénégal war nañ leen mën a appuyer. pour que gën a mën a am doole. mais en premier l' état. l' état parce que état moom moo moom moo autorisé banque yi ñu installé fi. moom moo moom moo moom moo war a protéger épargnant bi banque centrale. état moo war a jël ay responsabilités wax ak banque yi créer ay banque nationale yoo xam ne dana leen mën a concurrencer ndax prix yi wàcc parce que banques yi li ñuy def Sénégal ñoom ñu ko def seen i dëkk ah. li ñuy def Sénégal xëy supprimer guichet unique ne désormais léegi ku nekk fa nga ibbee sa compte foofu ngay yem foofu rek ngay mën a fayeeku boo demee beneen beneen agence doo mën a fayeeku mm-hmm. mais loolu ñoom banque bu koy def muy CBAO mm-hmm. mu ngi koy def carte gab lu ñu koy jaayee fii Sénégal mais ñemuñu koo jaay seen dëkk. SMS yi même chose mais yi application yi. application en ligne yi. mais est-ce que xam nga saa yoo ko téléchargé di nga fay presque ay mille cent soixante-dix francs saa yoo ko téléchargé sa portable bi nga fay loolu te boo ko fayee ba pare weer bu nekk danañ la ko fayloo encore mille cent soixante-dix ngay fay application di fay SMS di fay mail mais fi mu nekk ni kenn mënatul am dara. Mm-hmm. parce que tout simplement loo liggéey. banque bi tëdd ci te doo ci mën dara. mais Famara mhm. bi gën a graaw mooy euh, euh, banque centrale nga xamante ne euh, si jamono ji mu ngi waajal defal ay opération comme Wave wala Orange Money est-ce que tamit on peut être juge et partie. oui c'est ça cest à que euh, digitalisation bi banque centrale bëgg bëgg a yóbbu ñëpp. Mhm. ñun d'abord dañ koy saluer parce que dañoo nekk ci benn monde digitalisation. mais luñ ciy craindre mooy. population boo xam ne niveau d' instruction am élevé wu. niveau d' instruction numérique am tollul fenn fii. nga bëgg yow créer une digitalisation boo xam ne. yow jëloo des mesures d' accompagnement alors que y' a des cyberfraudeurs des cybercriminels yoo xam ne ñu ngi ci jaww ji mën a dugg sa compte vidé ko ça pose problème. quelles sont les garanties que la banque centrale nous donne nous en tant que client en cas de fraude. parce que tey boo xoolee. bëri na ñoo xam ne dañu am seen compte bancaire. di ko retirer ci yeneen opérateur émetteurs yi bugguma sax tudd seen tur pour publicité mhm. soit sa portable la nekk nga jël xaalis ba sa compte bancaire dugal ko fa mhm. mais il faut que sénégalais yi xam contrat boobu nan la tëddee mhm. opérateur de télé euh, de émetteur de monnaie électronique bi opérateur bi moom moo signé convention ak banque bi pour ko yow sa sa xaalis bi nekk sa compte nga mën ko transférer sa biir euh, sa biir ko échec bu amee banque bi naan sama yoon newu ci émetteur bi de sama yoon na imaginez ñaar ñu suñu contrat partenariat ci domaine boobu bu client bi defee échec cest à que boo def transaction bu mu échoué boo demee ci banque bi mën na la demal ci émetteur opérateur boo demee ci opérateur mën na la demal ci ñu bëri ci yooyu boobu lañu nekk mais c'est inacceptable ba pare contrat bu ñu leen signé mu ngi ci biir et puis moo tax état bi war a jël ay dem par rapport au contrat parce que contrat bi dañ cee wax ni. Euh, dala koy signaloo xamal na ni yoonam newu ci bu échec amee ku ci nekk day taxaw na la yoonam newu ci ba pare ñu koy commercialiser di ko jaay client en cas de défaut réseau bi baaxul nga échoué wala fa nga envoyé baaxul mais yow rek yaay perte loolu nag il faut que état jël ay responsabilités parce que état moo war a protéger mm-hmm. ses ses ses ses ses usagers mm-hmm. état moo koy war a protéger banque centrale tamit moom régulateur moo war a jël les sanctions. est-ce que sollicité ngeen leen aussi seen lutte bi ngeen di def. ah oui mm, état. état oui mais état lañu leen bind ci lettre. Mm-hmm. je prends euh, l'ancien régime plus de 300 lettres bind nañu ko 300 lettres bind nañu ñun se demandait ko. Mm-hmm. plus de 7 lettres bind nañu leen ko. Mm-hmm. ba léegi ñu ngi bon nous on comprend. parce que service bancaire bu ne dafa am TVA. Mhm. état day gagné ci banques yi c'est mais li muy perdre ci banque yi moo ëpp li muy gagné taxes yi muy jël foofu li muy perdre moo ko ëpp parce que lépp lu mu defar ay entreprise am lépp lu mu defar ay liggéeykatam dëkkam banque yi ngi ciy tëdd ay chiffre d'affaires yu énorme la def ay bénéfices yu énorme la ñuy def ay entreprise lañ yoo xam ne entreprise bu juddu ñu lekk ci yow dara parce que entreprise bu juddu lu ñu leen njëkk wax mooy dem wut compte bancaire entreprise pour ñu reconnaître la il faut nga am compte bancaire association pour ñu reconnaître la il faut nga am compte bancaire donc yooyu yëpp banque da leen di day lekk ci ñoom di enrichir benn enrichissement boo xam ne mu ngi daaneel suñu entreprise les très petites et euh, petites entreprises bu ci juddu lépp loo liggéey yow doo ci am dara ay ay remboursement pare nga koy def ay intérêt da koy fay. comment dëkk bi mun na parce que entreprise moom mooy développé réew. bu dee suñu entreprise yi dañoo dañ leen di appliquer ay vingt deux vingt quatre pour cent ça pose problème. moo tax entreprise yu ndaw yi start up yi ngay gis nii. mais li ñuy juddu la même année ñu ñu disparaître parce que duñu mën a supporter ba pare accès au financement nekk un problème tey pour ñu jox la financement banque. Ah. dañ lay laaj garantie kër waaw ban jeune. Ah. bu am moo am kër kër guy jaar buy jaar cent millions bu bu dee du sàcc. liggéey na rek pour mu am garante ay cent millions ay oto te garantie boobu boo ko joxee yow kër gi ci turu ci ci ci mu ca banque ba même sa oto tey boo ko garantee banque mais këyit bi banque koy carte grise bi turu banque bee ci ne yow amoo dara même terrain boo ko garantee banque nga tabax ci terrain bi banque bee téye këyit bi millions yi mu la jox yaa ngi ko teg ci kaw kër gi te kër gi ma nga ca loxo banque ba yow comme loo téye. lan nga téye donc ça pose problème ce qui veut dire que dëkk bi banquier moom lépp parce que kër yi ngay gis ñëpp ay montage financier la banquier leen financé banquier leen moom lépp lu fi baax jamono ji mooy wax ak ñoo Sénégal muy entreprise muy muy muy bien immobilier banquier ci teg loxo parce que muy oto banquier téye lépp tey bu ñu newoon dañuy nangu loolu yëpp Sénégal ñun dañuy génn toxu kenn du fi am sax mètre carré parce que banquier ko téye mais c'est extraordinaire. mais te loolu tamit li ko gën a dëgëral bokk na ci taux de remboursement est-ce que jotul ñu xoolaat ko. oui taux d'intérêt yi mais 14 pour cent 15 pour cent les banques 22 24 pour cent pour les institutions de microfinance xam nga institution de microfinance pour jaaykatu gerte caaf bi la. Ah marchand ambulant bi. jaaykatu jën bi mais ñooñu nga leen di appliquer un taux 24 pour cent. Mm. mais kañ la ñuy génn ci pauvreté. entreprise yi nga leen di appliqué et taux 14 15 pour cent entreprise boo fi appliqué ko 14 15 pour cent mais bu yàggee ci suuf la jëm. Mm-hmm. c'est clair parce que entreprise dafa am ay charges. bien yoo xam ne da ko war a fay mais ñun boo la koy appliqué ci suuf la jëm te bu ñu jëmee ci suuf. Mm-hmm. mais valeur ajoutée dootul am ci dëkk bi. sa mm-hmm. pose problème moo tax le débat sur les taux d'intérêt dañ ko war a poser au Sénégal bu ñu nekk fii di fiyewu ci zone bu ñu ne. nañu féewu sur les réalités sénégalaises ñu am ay benn convention pays état bi woo banque yëpp ñu toog mu ne leen taux d'intérêt bi bëggatuma mu yegg deux à deux chiffres mm-hmm. ni ngeen ko yóbbu ay quatre mm-hmm. cinq pour cent. état bi de nee na jub jubal jubanti xanaa dinañ jéem a jubal li nga xamante ne moom mooy mbirum euh, taux d'intérêt yi parce que c'est trop. comme ni nga wax jël ba pare bëgg a fay double wala triple bi loolu loolu war nañ ko xoolaat. mais foofu la ñu war a tàmbale li ñuy def nii yëpp mais pouvoir d'achat wu population bi. mais foofu la war a tàmbalee. benn dañoo war a fexe ba le crédit soit accessible ngay jeune jàng nga pare nga. boo demee banque ñu jox la pare. duñ fi nekk di la laaj trop de garantie ay kër ay oto ay kër yi ko laaj boo demee sur la base de la réputation financière sa réputation ñu jox la loolu mooy dëgg ñu mu accessible à moindre coût à moindre coût et taux kat cinq pour cent pour permettre entreprise yi ñuy dem pour permettre aussi ni ñi di mën a jot liquidité di def seen i activité mais taux boo ko yóbbu ay vingt quatre pour cent pour les pauvres mais ça pose problème nga yóbbu ko ay quatorze quinze pour cent pour les pour les pour les pour les euh, pour les entreprises pour les pour les autres mais ça pose problème. pauvreté bi dafa dañ du ñàkk également contentieux. Mhm. mais est-ce que tamit ne lekk ne loolu moom moo waraloon ngeen ngeen ngeen bëgg ngeen demandé woon à ce que ngeen assister ci assise de la justice yi. oui effectivement. xam nga assise de la justice waruñu ko jël ay assise pénale mhm. parce que man dama jàpp ne dama jàpp ne assise de la justice yi. mais con euh, règlement de compte la woon ah. dañoo bëgg a toog parce que tëjoon nañ ñenn ñi boo xoolee ñu tribunal du commerce moo tax mu wax ko. et contentieux en 2019. rapport bi wane ni contentieux yi dem na ba 200 milliards. ñaari entreprise yu jote ci ay milliards. banque ak Bocar Samba banque CBAO Bocar Samba Dièye jote ci 11 milliards. mais c'est des milliards fa la corruption bi ëppee bu ñu wax corruption du pénal du pénal parce que pénal boo fa demee da nga mën a da nga joxe 500000 wala 1 million ay juge alors que contentieux boo xam ne day toll na ci 40 milliards. mais juge bi téye benn deux milliards yomb na. donc bu ñuy wax assise bu sérieuse laa wax. assise nga bedd yow lépp luy entreprise muy banques yi muy euh, muy euh, euh, les associations de consommateurs muy actif mais sax pose problème ban genre assise la ñu organisé. benn moo ci gis seen bopp parce que dëkk économie moo ko yor. économie la ñuy mais nga bëgg ko def ci ay politiciens mais ça pose problème on a rien contre. Mm-hmm. mais ñun moo tax ñu réclamer ne leen mm-hmm. assises yi ngeen bëgg def de la justice dafa nekk affaire bu sérieuse mm-hmm. comme affaire bu sérieuse la duggal leen ci ñëpp ñu ci war a bokk muy banque yi muy commerce yi muy actif parce que ñun chaque jour pratiquement ñu ngi tribunal contre une banque ba pare li gën graaw mooy il faut que ñu poser le débat tey banque yow boo bu la gañee day nangu sa nangu sa oto saisir la dem jaayi ju ko jël xaalisam. mais yow mënoo gañe banque. parce que banque kenn du ko gañe Sénégal kenn du ko gañe Sénégal day def appel appel appel ba tribunaux yi jeex mu def appel CCJA. cour commune de justice bi nekk Abidjan. léegi yow bu dee da nga ko gañe fii il faut nga jël avocat fay ko ay honoraire fay ko billet d'avion fayal ko hôtel pour que bu fa yeggee mu défendre la boo ko deful ñàkk nga. même fii boo ko gañee décision ba nga jot war ko exécuter mais doo ko mën a exécuter moom bu la gañee mu nangu say kër ak say bien dem exécuter ko jaay ko mais yow boo ko gañee doo fayeeku mu ne la doo fayeeku c'est mhm. uh-huh. bu mu yor kenn mënu ko exécuter parce que banque les banques ne sont pas exécutables uh-huh. da dem bëgg a bëgg a saisir mu ne la awma dara les banques ont organisé insolvabilité daanaka moom ne banque bi daal mu ngi leble chaque jour ay millions ak ay milliards waaye moom amul dara amoo dara loolu loolu laal mu ne la dama ko loué mais banques yi dañoo am compte banque centrale te banque centrale boo fi yegsee mu ne la non non fii doo laal compte alors que banque yow boo ko amee lay xaalis nga am compte mu am xaalis day def benn saisie attribution juge da koy génneel benn décision de justice ñu dem saisir xaalis bi nekk sa compte mhm. dugal ko ci compte banque ñoom lañ gën a jox doole client boo ko ameelee xaalis. nga yor décision bi boo ko joxee. huissier pour mu dem banque centrale ñu nangu milliards yi mu yor foofu. fay la sa xaalis. banque centrale di leen protéger. naan leen naan naan euh, décision bi kenn du ko exécuter fii banque centrale. elles sont au-dessus de la loi. Ouais, et ce problème-là devait être posé dans les dans les assises. kan moo koy posé. Mm-hmm. problème bi est que ñoom maîtriser nañ ko. ça pose problème parce que. amuñu amuñu. dossier yooyu est fa sax problème boobu. ah ban évoqué évoqué parce que. xam nañ dossier dossier commercial kenn évoqué wu ko fa. tey bëri na Sénégal ñoo xam ne génn nañ àddina. Mhm. mais ba tey tëdduñu parce que seen xaalis mu ngi banque banque war ko jox seen njaboot banque tëdd ci te mira mën nañu leen miraas. c'est grave ça leen parce que tëdduñu am na ñoo xam ne dee nañ depuis 10 ans depuis 15 ans seen famille. mënuñoo miraas parce que xaalis baa ngi banque banque tëdd ci c'est un problème réel. te banque bu ci tëddee. et puis il faut moo wax ak fonctionnaire yi. fonctionnaire bu génn àddina wala liggéeykat bu génn àddina sa xaalis nekk banque parce que boo génnee àddina duñ ko teel a xam dañ koy dañ lay virer laat salaire. surtout ñuy nekk fonction publique surtout laay waxal bu ñu leen virer les salaires salaire boobu salaire boobu la ñuy wax salaire post mortem après décès. boobu banque bi da ko war a delloo parce que waru ko jël di si dagg agio waru ko jël tamit di ci dagg ay prêt da ko war a delloo. delloo boobu tànk banque bi delloo ko yenn famille bi doon nañ jot capital décès yenn famille bi pour nga doon na gaaw jot seen pension doon nañ seen pension yenn famille bi doon nañ jot indemnité bi ki ki gaañu am. ba pare dafa am délai de prescription ce qui est grave imagine ay njirim yoo xam ne état bi da leen war a jox seen xaalis. parce que banque bi téye na xaalis bi pendant sept ans huit ans door ko delloo. ñu bëgg leen appliquer délai de prescription ñoom njëriñ yooyu doo leen jot parce que délai de prescription bi jaar na bu defee bu matee 5 ans mais c'est extrêmement grave waxtu bi xoj nañu euh, nga tàggowaale rek euh, si li nga xamante euh, gouvernement bi li may wax sénégal yi mooy engagé wu leen ci combat bi ku am compte bancaire comme ku amul compte bancaire mhm. parce que ku amul compte bancaire da nga war a am compte bancaire c'est une exigence mhm. tey dafa métti moo tax amoo compte bancaire mais tey même boo amul 100 francs da nga war am compte bancaire donc dañuy engagé wu ci combat bi parce que gis nga yeneen dëkk yi lu ñuy rawee leen rek la banque yu baax yeneen citoyens yi lu ñu rawee du dara lu dul dañoo am compte bancaire ñu leen fay defal xaalis ñuy liggéey di développer seen activité privée. banque sax des fois bu dee fële la mën nañu laa jékki-jékki may la dugalal la waaye fii moom contraire mais moom la moom ñu bëri na ñoo xam ne dañuy jékki-jékki ñu dugalal leen xaalis seen biir ko ay 5 millions. liggéey. liggéey si wala te parfois sax du ñu laaj. te doo laaj. te doo laaj ba pare intérêt yi dara moo tax ma naan sénégalais wu vous parce que kenn du ñëw à votre place régler ce problème état du Sénégal nag yàgg nañu nelaw banque centrale yàgg na nelaw yàgg nañu nelaw pendant des années je pense que avec ce nouveau régime ça va changer parce que ñoom bu ñu def cette déclaration de patrimoine gis naa ni ils étaient comme xam nañ ni banque yi di fonctionner mhm. xam nañ jafe-jafe yi su nekk je pense que man dans les premiers jours dama jàppoon ni problème bancaire la ñuy njëkk régler Sénégal mhm. lu mu leen ci xaar nag. il faut toujours tirer la sonnette que ces banques là elles nous écoutent là ah. ah. a ci war a ànd <laughs> jaral pour ñu sàcc suñu xaalis. Ah. nañu ko jaral pour que suñu xaalis bi nga xam ne dañu koo ñàkk rek. mu ko jaral dëgg euh, en terme de de nombre. ou bien mais chaque jour on reçoit en moyenne. 40 réclamations en moyenne. 40 ah, réclamations. d'accord euh, merci donc euh, si fàttali yéen a ngi doon suivre seen rubrique éco entreprise ñu àndoon si ak. le président de l'association des clients et sociétaires euh, des institutions euh, financières di actif euh, mu doon Famara Ibrahima Cissé ku ne Famara Ibrahima Cissé sa xel dem si Famara Ibrahima Sagna di di turandoowam <laughs> ah. donc ñu leen di sant di leen di gërëm alors mënuñu tëj Fatou ju fay te mhm. ñaanaluñu suñu rakk yi nga xamante ne ñoom ñooy mm, def bac si tey jii nii di leen di ñaanal rek nga xamante ne premier diplôme bi nga xamante ne ne moom la am mu jig leen waaye tamit di sàkkuwaat rek si nguurub Sénégal mu xoolaat bu baax euh, système bi nga xamante ne moom la am si wàllum éducation parce que da ngay am mm-hmm. bac ba pare terewul tamit nga dem université boo demee université tamit ñëwaat génnaat dem defi jiwaat orientation pose waat euh, euh, problème nga mm-hmm. amaat tamit beneen problème muy lii di chômage des jeune donc mu mm-hmm. doon loo xamante ne système éducatif bi tamit war nañ ko xoolaat donc Fatou Faye ma leen uh-huh. di leen gërëm merci beaucoup Safietou Ibrahima li am solo li nga xamante ne indi na ko fi ñi dem